mbër bi génn na mbër baa ngi noonu mbër baa ngi noonu noonu nga gisee noonu mbër baa ngi noonu mbër baa ngi noonu mbër baa ngi noonu plateau noonu mooy seet waaw waaw waaw Jàppante waaw waaw. Bom, Lima burger. Burger, burger. Burger, burger. Fire, oya, majali. Rako, wainala. Majoyo, Damala, Damala, Damala, Damala, Kalau ada geru tu, mungkin geru di wajah esar

dama taxaw benn côté ah kenn du yéeg kenn du yéeg kenn du yéeg. fii kenn du fi yéeg kenn du yéeg kenn du fi yéeg te billaay bu yéegee dama daal bu yéegee dama daal. Eh. Nena jeex na nena jeex na leger bi leger bi lu mu leger bi leger bi lu mu am. bi xanaa daa taal bi mu ngoog de waaw waaw lamba ngi nii man lamba ngi nii plateau plateau muy plateau ngi reetaan plateau du muy ree ah loolu si kanam tuuti nañ ko xam mu bëgg nag waaw. mu ne ko lii meew mu ngi nan meew ba mu ngi nan meew bi meew bi soo dee ko nga koy nan mu ngoog lamba ngi nii lamba ngi nii lamba ngi nii lamb meew lamb guro lamb ceeb lépp si biir gis nañ fi Ada Fass gis nañ fi Double Moteur gis nañ fi Mante bu Waly gis nañ fi mbër yu bëri ñu ñëw jàppale ci plateau nee nañ plateau plateau Dakar la waaw waaw. para para arrière Voilà. Ah, ndam lu rëy a rëy ñu gis ni bedd ñee ngi noonu Ya, kamu dulu. Ya, ya, ya. Baik, baik, baik. sos dërëm bu ka ñor na hein dërëm waaw ñun takk kon ak départ ba jeex na takk ah Pla loo gisee waaw Pla waaw Pla. Amar zéro côté bële ba ma ñëw léegi. waaw ñëwal rek ñu baax. demal na leen. ah demal na leen. parce que man man oto bi si départ laa yéeg. oto bi si départ laa yéeg. oto bi si départ laa yéeg quoi. téema sama téléphone. ah Rob Daal di soog dem ah Rob Daal. te balaa may wax suba teeli plateau. yàlla noppi na. ah. yàlla noppi na. man maa koy tëj. man ah, maa koy tëj.

dimbali waaye yow yaa amoo maqaam